cant ak ngërëm ñeel na leen ami site internet net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek kat nga xamante ne rek di ñu daal di xam ne rek ñoo di suñu mbokk internet yi nee nañ nag kii di Al Abbas Fall musul gëm benn yoon kii di Ousmane Sonko nag dinañu ko éliminer rek ci jongante présidentielle yi nga xamante ne moom lañu dëtmal ci atum naam communiqué bi nga xamante ne rek conseil constitutionnel moom moo ko daal di fësal ba noppi rek daal di ci souligner parti Pastef bii di Ousmane Sonko waaye caution bi nga xamante ne rek moo ko doon mën a may ngir mu bokk ci jongante présidentielle dama ci atum 2024 lam ci daal di yokk mooy yàlla xam na ndax nag bu fekkee ñoom pare nañ pour éliminer kii di Ousmane Sonko yàlla rek moom moo xam mbir mu nu mel mu ngi ko daal di rek yëkkati moom député bi le ba tey rek kii di Abbas Fall la mu daal di xamle rek moo dina ma ngay jaajëfal bu baax équipe bu parrainage bi waaye nag ma ngay sargal bu baax ak kañ ki nga xamante ne rek moom la jàppee la meilleure des meilleures di Fatima Mbeng mi nga xamante ne rek lu mu guddi guddi ak lu mu naaj naaj rek mu ngi ci la mu ci liggéey bi ba tey rek moom Abbas Fall la mu daal di xam ne rek kii di Fatima Mbeng yemoo rek ci jàppale malade yi ak prisonniers yi waaye taxawaay bu am solo bi nga xamante ne rek daal dina koy def ñeel nag parrainage kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xamante ne rek daal dina ci bay waaram ba tey rek moom Abbas Fall la mu daal di xam ne laf cat Fatima Mbeng waaye nag liggéey bi dina continuer ndax atum 2024 bi de réew mi nag dina changé te képp kuy patriote rek mu ngi lay woo ci boobule eh, changement Sénégal. jamono ji nag kii di Ousmane Sonko mu nga nekk fu nga xamante ne rek moom mooy ca prison waaye nag ñaari condamnation yi nga xamante ne rek daal di nañ ko koy def ñeel juróom benn weeri kaso yi nga xamante ne rek moom la ñu koy toppee ca coow la doxoon ca diggante mag Mame Mbaye Niang ak beneen condamnation bi nga xamante ne daal dina koy am rek mooy gantal bi ko conseil constitutionnel daal di gantal ngir mu mën a bokk ci jogante présidentielle de match atum 2024 dara wunduwul ko rek lu dul nag génnee ko ci yooyu le jongante waaye nag